alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidi al awalina wal axirin sayidina wa xabibina wa shafiina wa wasilatina ila rabbina mabuusu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma baad asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñëw ci seen euh, risaala bi nga xam ne ne rajo la boo xam ne ne da ci animé ay podcast te incha allah podcast bi nga xam ne moom lañ topp nii di waxtaane moom mooy al adab te mooy teggi nii nga xam ne ne nit ki moom la war a amee euh, mën ngeen ñu mën ngeen ñëw suivre ci réseaux sociaux yi lu ci mel ne Instagram lu ci mel ne Twitter euh, lu ci mel ne tamit suñu chaîne YouTube te ris mooy Risaala TV ci réseaux sociaux yi mën ngeen def Risaala podcast donc loolu euh, lu jër bàyyi xel la incha allah boo leen ci demee ngeen abonné euh, pour mën a jot yeneen podcast yi mën a nekk à jour et cetera donc loolu moom mooy li nga xam ne moo aju ci Risaala te mooy rajo bi naka noonu tamit euh, podcast bi nga xam ne ne moom lañ topp di waxtaanee boobu ba léegi moom mooy al adab te mooy teggin yi jotoon nañ gis nag point yi nga xam ne ne. moo aju ci euh, diggante nit ki ak suñu borom tabaraka wa taala teggin yi nga xam ne moom la war a doxale naka noonu tamit euh, gisoon nañ teggin yi nga xam ne ne diggante suñu euh, nit ki ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam la naka noonu tamit incha allah noonu la ñuy defee digression dugg ci beneen bunt tamit te teggin yi nga xam ne ne moom la war a doxalee ak nit ñi wala société bi ci ci boppam ndaxte loolu lañu su taayusu bayna naas ak taayusu bayna naas moom mooy cohabitation bi war a exister diggante nit ki ak yeneen moroomu nitam ndax suñu borom tabaraka wa taala moo bindee noonu àdduna bindee noonu nit ne moom ci boppam euh, dafa soxla yeneen nit ñi pour mën a dundu li nga xam ne moom mooy societé société nag dafay am ay mbir yoo xam ne moo koy régir du nekk loo xam ne ne lu waay neex def euh, lu waay neex wax lu waaye ne eh, doxalee te alors que du am benn conséquence boo xam ne da ko ciy fekk donc loolu jara bàyyi xel la dafa am teggin yoo xam ne ne déjà dafa ay loi yoo xam ne ñooy taxaw fii di wane limite kenn ku ci nekk fii la yam waaye tamit dafa am ay teggin yoo xam ne ne ay règle bien bienséance boo yoo xam ne ne nit ki loolu la war a doxalee diggante moom ak ñi nga xam ne moom la ñoom lay ñoom lay dëkkal ñi nga xam ne nag ñoom ngay dëkkal ci koñ bii ak ci euh, société bi wala sax rien ci Sénégal wala ci dëkk bi ci boppam euh, ki la gën a jege du kenn ku dul say say ñaari waajur naka noonu tamit sa mbokk moo tax ci bunt boobu da ngay gis ne yonent ba alayhi salaatu wasalaam ndaka noonu tamit alquran dañ ciy insisté par exemple ci alquran nu muy waxee ci diggante ñaari waajur wala teggin yi nga xam ne ne euh, nit ki moom la war a doxalee diggante moom ak ñaari waajuram mun nga koo tënk ci six point premier point bi mu mooy al ixsaan moom mooy rafetal moo tax nga gis mi wax ci alquran ne ubil day ixsaan ixsaanan ne dañoo diggal ci seen ci li nga xam ne moom mooy ak waajur liñ ci digal ak liñ ci sopp moom mooy rafetal donc dafa war ci képp koo xam ne ne jullit nga ngay rafetal sa diggante ak say ñaari waajur rafetal bi nag après dinañ ci ñëw moom mooy deuxième point bi moom mooy al ixtiraam muy amee rafetal bi ni muy amee moom mooy ci jox leen cër fil xawli ci li nga xam ne moom mooy say wax moo tax nga gis alquran di wax ne fala taxul lahuma uffin bu leen wax seeni ñaari waajur li nga xam ne moom mooy uff uff ci arab moom mooy lan moom mooy comme boo ko doon tekk ci olof mooy mel nga ne cim sa buuxul ma la donc loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar a moytu la ci sa diggante ak say ñaari waajur léegi nag ku la tere loolu li gën a garaaw donc koy tere moo tax amoo droit waroo ci bon sens rek waxuñu sax ci religion mais dafa rafetul dafa amul teggin dafa dafa dafa nekkul loo xam ne daal lu lu nite la tiim say ñaari waajur di leen daggal di leen wax wax yoo xam ne ne di leen saaga dañu gis ñoo xam ne dañ koy def loolu nite nit ki bu demee ba yegg foofu rek nite dañ na ci moom kooku nite nekkatul ci moom ndax ki la xam ne moo la meññ nga juddoo ci moom ak li mu daj yépp yow nga mën a taxaw dem ba nga xam ne ne yow ci boppam yow yaay yow yow yaa koy wax yenn yi kon kooku buy naka la ko ñeneen ñi di respecté naka la ko ñeneen ñi di di xoole comme si ku yarul ay doom te pourtant fi mu la war a teg yëpp teg na la fa fi mu la war a defal yëpp def na la fa waaye yow yaa dëng sa dëng bopp yow yaa respecté wul li nga xam ne moom mooy waxit bi ngay war a waxee ak ak yow ak ak ak ñoom ak moom moo tax nga gis waxul mu wat mu teg ci waxul lahuma xawlan karima da nga wax ak ñoom wax yoo xam ne wax yu teggi new wax yu rafet am na koo xam ne xëy na du doxalee noonu ak waa ñaari waajuram chaque jour waaye waaye saa yu meree rek nga gis mu wax waxin yoo xam ne ne yépp waru ko sax waxee ak moroomam waxuma la nag bu koy waxee ak ñaari waajuram donc loolu jërë moytu la booy wax ak say ñaari waajur ak sujet bi lu mu complexe complexe complexe ak même bu fekkee da ngeen di werante fi mu ne ci benn mbir yow fexeel ba nga xam ne ne ñoom bu ñuy sànni ay kàddu yoo xam ne sax yow neexu la mu ngi lay jam sa biir xol yow fexeel ba nga xam ne yow kàddu yi ngay rendre kàddu yi ngay delloo na nekk kàddu yu tedd na nekk kàddu yu rafet donc loolu la alxu alxuraan digal yoon saa sam loolu la loolu la la digal tamit troisième point bi moom may tawaddo may wàccee sa say laaf wàccee sa sa bopp ci say kanamu ñaari waaju moo tax mu wax ne wat wax wax fit lahuma janaaxa zulli min ar rahma mu ne na nga wàccee li nga xam ne mooy say laaf jëmee ci ñoom te lépp mu nekk yërmande da nga wàccee sa sa maam da nga da am nooy nooy sa diggante ak ñoom say jëflante say waxin say doxalin sa diggante ak ñoom na nekk loo xam ne lu rafet wala tan falaa tan xarhuma te bu leen bu leen bu leen bu leen bu leen soññ booy wax ak ñoom booy doxalee ak ñoom surtout bu ñu demee ba màgget la xam ne doxin bi demeetul noonu ngeen war a dem fenn bul nekk di ko soññ bëgg moom mu demee yow sa rythme yow mi nga xam yaa ngi toll sa diggu doole waaye na leen fekk si ñoom ci seen ci seen ci seen ci seen rythme ñoom waaye bu leen soññ bu leen yàkkamtiloo déedéet bu leen wax yenn wax yi tamit euh, gaawal euh, nii rek ngeen di def di tardel ñi déedéet moom la ko waxee woon léegi nangam nangam boo teelu déedéet bul bul waxee noonu ak say diggante say say ñaari waajur juste jéemal dem ak moom ci sa rythme beneen yoon nga xool nag ngay naka ngay gérer sa temps wala nag ngay gérer euh, mbir bi beneen yoon mais pas ngay ñëw di ko di ko wax yenn wax yi wala di doxaleek moom yenn doxali naka noonu tamit da ngay wàccee sa bopp ci nan ci bu fekkee danga am poste post boo mën a nekk yaay sa yaay la bàyyi sa baay la mënoo fexe ba nga xam ne ne da ngay yor poste ba contraire bi mën a ne ndaxte yéen saa sam comme ni mu ko waxee nit ki mënul jotee li nga xam ne ne moom mooy ak baayam xanaa lenn mu fekk baayam jàppoon ko benn comme jaam mu goreel ko loolu rek no mooy solution à part léegi jàmm amatul donc de ce fait li ci am moom mooy nag moom mooy lu mënati am ci daraja boo mën a am ci alal boo mën a am pouvoir boo mën a am loo mën a am en tout cas ci àdduna mënoo fexe ba nga xam ne ne bul bi day tourner nga nekk seen i baay nga nekk seen baay ñoom ñu nekk ñoom ñu nekk say doom loolu mënatul ne n'est-ce comme lu olof di wax nit mën na mag baayam mën na mag waaye mënul mag ki nga xam ne moom la mag te sa baay moom moo la ñëkk mag sa baay moo ñëkk mag maam bi lañ meññi moo tax may wax moo la ñëkk mag kon kooku mënoo fexe ba mag ko kon naka noonu tamit da ngay wàccee kon say say say laaf da ngay wàccee say daraja ci seen kanam bu leen toog di yëngal ay caabi di wane ne man eh, dama indépendant wala man ma wala sax ñoo xam ne man j'ai réussi ma vie par rapport ak samay ñaari waajur et cetera wala par rapport sama baay non non loolu du bu rafet. c'est pas parce que léegi fi mu ne paa bi moom mu doon am ci wërsëg xëy na musul laal million ndax lépp ci kër gi la daan mais yow fi mu ne yaa ngi am ay compte bancaire compte chaque mois yaa ngi am ay millions cinquante millions et cetera te paa bi amu ko woon loolu signifié wul ne paa bi dafa rate àdduna signifié wul na yow yaa gën a jàmbaar paa bi signifié wul ne yaa ko dàq ut xaalis waaye xoolal ci responsabilité yi ak ci jamono ji ak moom sacrifice yi mu def pour yow nga mën a réussir pour yow nga mën a toll fi nga toll tey bay mën a puukareewu xoolal effort yi nga xam ne moom la def bu nekkul sa baay tamit sa yaay aussi yan effort la def ba nga judd ak ñoo xam ne ne dañuy jur doom dem yàq ëmb bi loolu nekkul lu xaram moom bu ko neexoon def ko ci anam boo xam ne kenn du ko yëg ci premier semaine yi mu mu yàq ëmb bi waaye déedéet mu nangu ko jël la toppatoo la nekk di feebar et cetera lu nekk mu dugg ci boobu mënuloo ko dara te rien ne l'oblige à ce que mu jur la rien ne l'oblige donc nga xool kon effort yooyu mu nangoo jël rien ko pour yow coono yooyu muy nangoo jël rien que pour rien que pour yow ba pare nga juddu boo juddee di ci topp yëpp ngay toog di ko xañ nelaw ñoom ñaar ñëpp di leen xañ nelaw donte liñ gën a xam moom mooy bàyyi ji moom day Eh, day xaddoor parfois ndax fi muy liggéeyee moo tax c'est normal euh, naka noonu tamit nga xool euh, couche yi taay bi war a jënd yooyu tamit kee war a couche tax bul la couchul nga yàq sa tubéy wala nga yàq seen yére wala nga saw leen et cetera nga xool tamit jamono jooju trois heures du matin ngay jooy pour pour lan dara da nga am envie jooy nii ren xale loolu la xol bi day jàllar bi ko noonu rek heure bu ko neex lay jooy heure bu ko neex lay noppi léegi lay bëgg benn mbir beneen léegi mu bëgg beneen mbir donc loolu yëpp ngay xam la xam ne ne parents yi mun nañuy daj ci jamono jooju waxuma la nag tension bi xew seen biir euh, malaise bi xew seen biir en euh, en même temps et yëpp ñu koy muñ conséquence yooyu yëpp ñu koy ñu koy dékku ngir lan ngir rien que famille bi stable yow ci boppam juddu ngeen mën nga mën fi fekk stabilité ci biir kër gi donc loolu noonu yëpp. waxuma nag dund bi ak yooyu buñ ko doon lim fii du jeex waaye yooyu yëpp nga gis ñoo koy def fexe ba nga xam ne ndax yooyu ñoo créé wu ba tey jii créé nit bi nga doon tey donc est que loolu moom mooy euh, fay bi nga xam ne li moom nga leen war a fay est-ce que moom mooy jël li nga xam ne mooy sa titre yi wala jël sa sa sa bëgg leen ko euh, bëgg wan ne ne dafa indépendant par rapport ak yéen seen effort loolu xam nga ne baadoo la moo koy def waaye nit ku nite ku nekk koo xam ne santkat ka santkat dëgg du def loolu mooy santkat su ma ko waxee mooy koo xam ne ne lu ko waaye nit lu ko nit defar rek moom dina ko dina ko gis dina am dina dina reconnaissant waaw loolu laa bëgg wax dina reconnaissant kon ku reconnaissant du doxalee noonu ak ay ñaari waajuram te nag comme waajur lu moo waxoon nit koo xam ne reconnaissant woo ci say ñaari waajur ak effort yu ñu def yëpp mënoo reconnaître boo nee da ngaa reconnaissant ci keneen da ngay wax lu la neex rek donc loolu jara bàyyi xel la beneen bi tamit moom mooy di ñaanal say ñaari waajur bu fekkee mënaguloo sa bopp yaa ngi nekk koo xam ne xëy na yaa ngi liggéey mais mënagoo yor charge kër gi paa mu ngi yor charge kër gi ba léegi ak mère bi tamit mu ngi yor yenn charge ci kër yi yoo xam ne yow mënoo ko yor léegi yow li la war ci jamono jooju comme ñu ngi dund da nga leen war a ñaanal bu ñuy génn àdduna tamit bu ñu génnee àdduna da danga leen war a ñaanal mais surtout tamit boo leen bu ñuy dund ndaxte bëri na ñoo xam ne ne ñoo ngi toog ci benn kër wala ñoo ngi toog seen kër waajur ba léegi te seen waajur du kaas mu ngi continuer di leen wërsëgal wala di leen di leen dundal di leen yor et cetera te mosuñu toog ñaanal seen waajur loolu existé na ñoo xam ne mosuñoo toog. tàllal seen ñaari loxo ni sama waajur kat eh, yàlla na yàlla oyofal oyofal ko liggéey bi yàlla na ko yàlla dolli loolu wërsëgam rien que ça yàlla na yàlla dolli wërsëg bi nga xam loolu sax ñaan woowu sa intérêt la ne am ñoo xam ne seen xel sax du ci dem te loolu jërë moytu la seen ñaari waajur da nga leen war di ñaanal bu ñuy dund am ñoo xam ne dañoo yàq ne bu ñuy deewee rek nga leen war a ñaanal déedéet bu ñuy dund ñaanal leen yàlla dafa leen njub yàlla defal leen eh, li xam ne moom mooy wërsëg lépp lu ñuy yootu yàlla nañ ko am lu ñuy yaakaar ci seeni doom yàlla bu mu tas et donc loolu da ko war a ñaanal say ñaari waajur naka noonu tamit bu ñu génnee àdduna tamit foofu tamit lañuy ñuy gën a férdal foofu lay gën a féddaliku tamit nga leen di ñaanal rahma nga leen di ñaanal yërmande nga leen di ñaanal njéggal ah, nga leen di ñaanal ngërëm suñu borom tabaaraka wa taala nga leen di ñaanal àjjana Ah, naka noonu tamit di leen saraxel di leen defal ay yoo xam ne ne daf leen di fekki ji foofu di leen amal njëriñ donc loolu jërë bàyyi xel la waaye dëng say waajur weesuwul maanaam ah, fii nii sax mën nga ñàkke teggin say ñaari waajur d'accord mais ñàkkee teggin say ñaari waajur weesuwul tamit mu génn àdduna li nga xam ne moom la loolu tere ci bon ci ay tox yàmbaag yu kenn xamul yéen yu bëri na xam ne fu la ko doon tere nga bàyyi ba mu génn àdduna yow nga dellu comme génn na àdduna rek nga delluwaat nga dellu ci mbir yooyu jàpp ne fi mu ne liberté nga am loolu amul lu ko gën a garaaw loolu dënge boobu sax moo gën a garaaw dënge mi dënge ko ci ci ci ci ci àdduna bu koy bu koy gis donc loolu lu jar a bàyyi xel lu jar a moytu di ñaanal suñu ñaari waajur bu ñuy dund ak bu ñuy dee ndax am na ñu bëri ñoo xam ne pour ñoom bu ñuy dund rek moo tax ñuy wax mais même bu ñuy génnee àdduna tamit xaw am na ñoo xam ne ñoo yà dañoo jàpp ne bu ñu deewee rek nañuy wax mais même bu ñuy dund tamit dafa war ci ñun ñu leen di ñu leen di ñaanal yàlla woyofal leen wërsëg bi comme li ma ko limee. cinquième point bi nag moom mooy dëkkaale bi nag nga war a dëkkaale ak say ñaari waajur loolu tamit alxuraan da ci insister moo tax moo xam ne wa saahibu wa saahibuhuma fi dunya maarufan kon na nga na nga eh, na nga dëkkaale ak ñoom fii ci àdduna ci anam bu rafet ci anam bu tegginewu ci anam bu rafet bañ a dëkkaale ak ñoom ci di jàmbat surtout bu ñëwee ba màgget yor ah, yor yenn âge yi mënul tuñ seen bopp lu bëri mënul seen bopp dara yow nag au lieu daanaka nga nekk seen kilifa au lieu jamono jooju nga compréhensif comme ñoom lu ñu compréhensif woon mais déedéet fa ngay nekk di jàmbat rek lu ñu def lu ndaw ñu nga jàmbat mu ñuy def lu ndaw da jàmbat dese fekk ñoom dañuy dem ba nga xam dañuy xat ci biir kër gi kër gi nga xam ne moom lañu waroon yaatoo dañuy dem ba dañ ciy xat nga xam ne fi mu ne demoon dëkki seen kër seen benn mbokk sax boo ne du sax seen doom moo leen moo leen di gënal wala sax génn àdduna am na ñoo xam ne dañuy dem ba situation yi ñuy dund ñoom ci boppam ñooy ñaan seen dee ñoom ci boppam ñooy ñaan yàlla gaawal seen i kii ndax situation yi ñuy dund nañ mënatul muñ donc loolu jara moytu la nit dem ba nga xam ne ne ni muy dundee sa biir kër dee moo ko gënal loolu lu jërë moytu la lu jërë bàyyi xel la lu jërë lu jërë lu jërë lu jërë di gëstu la naka la nit ki parce la nit ki matul kenn matul yow yaay xool ne lii sama défaut la nga xool naka ngay fexe ba nga xam ne ne da nga koy da koy da koy da koy combler ngay fexe ba moom nga koy réparer gis nga ne man nii laa mel ci kër yi neexumaa dëkkal la moo tax neexumaa dëkkal parce que dama bëri lu may def nangam kon loolu naka laay def ba nga xam ne day dañ yow yaa koy liggéey dañ koo layee rek ci euh, àdduna bi fu mu toll jamono ji jamono nàngam la déedéet loolu yëpp du ay lay yoo xam ne ne lislaam yu mu gërëm la donc loolu jërë bàyyi xel la ci ñi ngay njëkkee woon ak ci say waajur moom mooy lan moom mooy sa yaay comme nu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu ko waxee ci xadis yi waaj ba mu ñëwee ba laaj ko mu ne ko sa yaay ngay njëkk jox après sa yaay après sa yaay doo ko wax après sa pap donc loolu jar a bàyyi la ndax yaay lu mu sonnee ci ci ci ci ëmb ak yi ci aju ci nàmpal ci euh, yor la et cetera waaye tamit am na loo xam ne ne nit ki waru cee topp waajuram comme lu alquran wax ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmi fala tutihuma mu ne bu fekkee nag dañ laa woo ci li nga xam ne ne moom mooy di ma bokkaale ci loo xam ne ne yow amoo ci benn xam-xam bu boobaa bu leen topp ci li nga xam ne moom mooy loolu noonu ñu lay woo moo nga gis saxaaba yi ñu ci bëri am na ci ñoo xam ne dañuy gis ne dañoo nekkoon ay jullit seen parent yi nekk ay yéefar mais teewul ñuy doxalee respect ak ma ak seen diggante seen ñaari waajur donc loolu jar a bàyyi xel la kon waxuma laa nag say ñaari waajur nekk jullit yow tam nga nekk jullit donc loolu jar a bàyyi xel la bu fekkee nag dañ la woo ci loo xam ne ne dafa contraire ak sunna dafa contraire ak li nga xam ne moom la yàlla digle bu boobaa nag bu leen topp par exemple nga bëgg exemple la rek nga bëgg muuru nga xam ne ne dem nga ba xam ne ne lii nag farata la ci man donte samay waajur defuñ ko waaye nag man jël naa décision ne comme farata la ci mboolem jigéen yi te man jullit laa dama koy def sa waajur bu jigéen en général ñu góor yi duñu wax duñ ci duñ ci am benn kii mais parfois nga gis koo xam ne ne yaayam ci boppam moo ko ci jéem a dis eh, di mooy ko ci jéem a génne di ko jéem a wax ne wala jamono ji fu mu toll ngay muuru nii kiy muuru day gaaw a ak du am jëkkër du am liggéey genre yooyu noonu di ko def ci bopp xale bi rien que pour mu teggiwaat muuraay bi wala dootuma waxanteeg yow ak genre yooyu suñu borom tabaaraka taala nee na nag bu fekkee nag genre situation yooyu la bu leen topp ci ci mbir boobu bu leen ne euh, comme samay waajur bugguñ may muuru kon dootu ma muurooti comme sama ba ci sax jëkkër gi day dem ba ci jëkkër gi et cetera donc loolu jara bàyyi xel la ne am na yoo xam mooy lu yontu alayhi salaam wax ne kenn du topp mbindeef ci mooy yàlla kenn du topp mbindeef ci mooy yàlla donc loolu jara bàyyi xel la waaye nag ndax da leen di wax ne waaw yéen ay nangam ngeen nangam ndangam coow ak ñoom ci loo xam ne ne jaru ko commencé nag léegi di doxalee noo xam ne ne baaxul déedéet alxuraan dafa na ne na nga dëkkaale ak ñoom ci anam bu rafet même bu fekkee am ngeen désaccord ci lu aju ci pas-pas pas-pas bi nga gëm moom moo gën a jub moom moo gën a nekk ci yoon waaye nag du tee na nga rafetal ni nga xam moom ngay dëkkaale ak ak ñoom waaye tamit deuxième point bi mooy lan deuxième point bi moom mooy silatu ra euh, rahim moom mooy fexe ba nga xam ne da jokk tamit mbokk ndax loolu farata la boo xam ne ne ñu bëri dafa mel ne xamuñ ne farata la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne euh, ci xalis boo xam ne ne muttafaqun alayhi la mooy ne euh, imam Bukhari ak imam muslim solondoo nañ ko mooy ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne laa yadxulul jannata xaati un rahim mu ne ki nga xam ne ne moom dogkatu mbokk la kooku du dugg aljana kon nit ki lépp loo xam ne da koy teree dugg aljana loolu da ko war a maytu te mooy dog mbokk te jamono ji jamono la boo xam ne ne eh, dox mbokk yaatu na eh, ci anam bi nga xam ne mun nañ ko defee mun moom nañ ko mën a defee munoo ko def ci say mbokk yëpp peut-être mais am na ay situation yoo xam ne ne bu amee profité ci par par exemple am na ay genre situation yoo xam ne ay gàmmu ay màggal yoo xam ne famille bi dañ fay tase loolu occasion la pour nga jokk say bokk ci même bu fekkee at ba at am na ñoo xam ne ne da nga leen di war di jokkul lu bëri ndax parce que peut-être yor nga seen numéro yéen a bokk bërëb bi nga xam ne moom ngeen di liggéeyee wala xaw ngeen jegewoo kër kooku li du yoon ngeen jegewoo kër ngeen toog ay at doo leen xamante doo doo leen gisante doo leen déggante ken du xam imagine ñaar ñoo xam ñoo ngi nekk ci biir koñ bi kenn du demalante sa sa morom ku nekk di xaar sa morom ku nekk naan ay suma woowul duma ko woo man xanaa moom moom ëpp ful la déedéet waroo leen doxalee noonu yéen ñaan ñëpp waaye li nga leen waroon doxalee moom mooy lan booloo nekk benn lu xuri kii wokk kële loo xam ne ne dafa metti diw diw yëg ko lu neex diw tamit diw diw yëg ko loolu moo loolu moo nekkoon lu jaadu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis boo xam ne ne eh, imaam ahmad da ko solo dafa wax ne képp koo xam ne ne dangaa bëgg suñu borom tabaraka wa taala yokkal la xéewal bi nga xam ne moom lay moom la lay defal naka noonu tamit mu barkeelal la ko na nga fexe ba nga xam ne da ngay jokku mbokk donc loolu lu jar a bàyyi xel na say mbokk kon ku laan na jokkal mbokk tere na la nga nga nga nga nga leen wala nga nga dog ko donc loolu boo ci boo ko déggee dangay ngay comprendre ne li nga xam ne moom mooy teggin ak si diggante ak say ñaari waajur moom mooy ci waxin bi naka noonu tamit mooy ni ngay waxee ak ñoom naka noonu tamit ni ngay dëkkaale ak ñoom naka noonu tamit ni ngay jëflantee ak ñoom naka noonu tamit liy teggin moom mooy bañ bañu tamit topp kenn ci loo xam ne ne lu xaraam la te loolu moom mooy teggin bi nga xam ne moom nga war a doxalee ak sa diggante ak sa borom loolu foofu lay dugg naka noonu tamit li nga xam ne mooy teggin mbokk nag moom mooy nga fexe ba di ko di ko jokk suñu jamono ji euh, alhamdulilah moyens yi bëri na parfois nga gis koo xam ne ne say mbokk sa benn mbokk daf lay envoyé message au lieu nga tontu ko comme xam nga ne mbokk la rek nga bañ ko tontu bañ xool message te pourtant dayewu la dara daf loon xool rek xam yaa ngi ci jàmm ngir lu rafet rek la ci jublu waaye gis ñoo xam ne duñu tontu message bi fa nañ koy bàyyi euh, ba waaj yi yàlla nañu yàlla sàmm bu fekkee dafa nekk koo xam ne kuy gis boppam la ba moytu foofu lay jaaree dootu ko message te waaye lu le minimum foofu moom mooy lan moom mooy nga tontu ko message am man ko ne yaa ngi ci jàmm au minimum comme na yow yaa waroon njëkk def premier pas comme moom moo def premier pas bi kon ana sax lan mooy premier pas ci say diggante ak say mbokk ay premier pas bu ko deful man duma ko def loolu sa diggante ak say mbokk peut-être mën nga ko def ak jàmbur mais sa diggante ak say mbokk loolu waru cee am ay premier pas ak deuxième pas loolu waru cee waru cee am kon loolu jar a bàyyi xel la ci jokk mbokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee medinatul munawwara euh, ala saaki ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam dafa wax ne euh, mu ngi jug mu xadis boobu euh, Muhammad ibnu mas ibnu maslama moo ko riwaaya wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu njëkkee ñëw medinatul munawwara ba ma xoolee kanam bi laa xam ne kii nekkul koo xam ne ne waxkatu lu dul dëgg la waaye li mu doon li mu njëkk a wax moom mooy yéen nit ñi na ngeen euh, tasaare niw nuyoo naka noonu tamit na ngeen jokk mbokk te ngeen di julli guddi jamono yi nga xam ne nit ñi ñoo ngi nelaw bu boobaa dangeen ngeen dugg àjjana ci jàmm kon nga gis ne foofu dafa wax àjjana wax feenee tamit ne képp koo xam da dog mbokk da ngay dugg doo dugg doo dugg àjjana kon loolu danga ciy déggee ne jokk mbokk dafa nekk loo xam ne ne dafa bokk ci li nga xam ne mooy dugal nit àjjana kon loolu jara bàyyi xel la kon teggin yi nga xam ne moom nga war a doxalee ak say diggante say mbokk ko war a sàmm ci waxin bi ci jëfin bi ci doxalante bi bañ a wor say mbokk bañ tamit dem di def yoo xam ne ne après day yàq seen der parce que mbokk dafa yaatu nga xam ne nit ki nu muy defee après dinañ mbokkam yi parfois ngay gis sax koo xam ne day def benn mbir ñu ne xanaa kii amul ay mbokk kon loolu lu jar a bàyyi xel la nekkul loo xam ne nit ñi dañ koy wax noonu pour zéro am na ñu ci jublu am lu tax ñu koy ñu koy wax wala kii fu mu jógee xanaa bàyyi fa ay mbokk et cetera ndax jëf yi nga xam ne moom nga nekk di jëf te loolu yëpp dafa nekk loo xam ne dafay yàq see seen di der mbokk yi bu ñu jékkee gis la nga nekk ci yenn yoo xam ne yëpp yooyu yëpp baaxul nekk ci ay dox yàmbaaw ak nekk ci euh, mbir yoo xam ne boo koy tënk daal dara baaxu ci te day yàq seen der ñoom daf leen war dafa ko ñuy wax ak yow ñëw toog la taaj la wax ak yow dala lii nag dañ ko war a bàyyi parce que ñoom ci boppam la fi mu ne ñoom mbir bi yamatul ci yow kese waaye seen der la aju ci seen der la nekk di wax moo tax ñuy obligé ñoom di ñëw di waxtaan ak yow ci mbir boobu bu noonu leen c'est ma seen yoon nekku ci et cetera parce que ta vie d'accord mais der tamit seen der tamit seen askan tamit waroo koo tilimal ci yenn actes moo tax ngay gis ñuy intervenir ci ci ci ci mbir yi nga xam ne ne yow peut-être yow yaa ko def mais dem am influence sax ci ñoom seen seen seen seen askan. donc loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar moytu la tamit lu jar a sàmm la diggante ñaari waajur teggin yi ci aju dafa noonu tamit diggante say mbokk teggin yi nga xam ne moo ci moo ci aju ci sàmmal leen seen der naka noonu tamit ñee ci bañ leen dëngee di dund ak ñoom di jëflante ak ñoom jëflante bu. bu rafet bañ na nekk rek benn sàmm alar boo demee ci jàmbur am jikko yu rafet bu fekkee nag da ngaa toog ak say mbokk nekk koo xam ne ne yow sax duñu bëgg ngay ñëw saa yoo ñëwee dañuy am problème wala foofu mu am ñoo xam dañuy xeex wala boo ñëwee fasal ñëpp kanam nangam nangam créé fa ay problème déedéet boo demee feneen nag nekk koo xam ne moom dañ lay tàggal dañ lay yëkkati wala boo demee feneen di séddale xaalis di kii alors que da nga gis koo xam ne ne yow mu ngi sa wet di sonn nga waroon ko dimbali doo ko dimbali wala nga gis koo xam ne ne par exemple day jaay ne moom dafay dafa mën taxawu fee ku feebar wala dafa mën a taxawu nit alors que loolu nu mu mën a muñal ki nga xam ne moom mooy jàmbur bi moom mënul muñal kaar bi ki nga xam ne moom mooy mbokkam moo xam ne moo gën a jege donc rien que rek waxtaan ak moom ci jàmm ci salaam même boo leen dugg sax kenn ku ci nekk ci vie privée mais waxtaan rek jàmm sekk jàmm waxtaan ci jàmm am salaam kenn ku ci nekk xam na ne sama mbokku diw de mu ngi ci jàmm mu ngi ci mu ngi daal ci ay mbiram loolu rek nit ki da ko am na ñoo xam ne mënuñ ko wala am na ñoo xam ne dañ koo sàggane donc loolu lu jar a bàyyi xel lu jar a moytu la sa diggante mbokk dégg naa kenn koo xam ne benn mag wax na ne képp koo xam ne ne dokkatu mbokk moom te loolu mu wax noonu dëgg la mooy dokkatu mbokk képp koo xam ne ne da yaakaar ne dina jokk mbokk beneen mbokk c'est parce que yaa ngi nax sa bopp te loolu dëgg la ñi la gën a jege bu fekkee ñoom nga dog koo taxaw naan noo man maam am kóllëre loolu waxoo dëgg parce que da amul occasion rek pour pour pour war leen c'est vrai dinañ ma wax ne ma non Issa c'est parce que tamit mbokk jam maam suñu jamono mbokk yi tamit ñooy waa da ngay waaru yenn problème yi ñoom ñoo koy teg te lool c'est vrai fee la boo xam ne mënuñ ci dara nit ki da gis koo xam ne ne day bëgg réussir mooy xëy na mbokkam yi am na ay mbokkam yoo xam ne ne ñoo koy téye wala ñoo koy def def yenn yi wala ñoo koy mettre les bâtons sur dans les roues et cetera mais loolu tamit teewul am na ay mbokk yoo xam ne ñoo li war sa diggante ak ñoom mooy rafetal sa diggante ak ñoom donte yaa ngi xam lu ñuy def mais soo leen tasante reetaan la foowal kafal bu ñu waxee reetaan et cetera jàll ci leneen boo demee nag sa dund la sa dundu la nga jëm ko gérer sa sa sa bopp am na ñeneen ñoo xam ne tamit ñoom tooñuñ la munoo wax na ñëpp a maase di la tooñ ñi xam ne tooñuñ la tamit da rafetal sa diggante ak ñoom ñi lay tooñ sax alxuraan lu mu la digal moom mooy nga rafetal sa diggante ak ñoom même bu fekkee sax nekkul mbokk ki nga xam ne du mbokk moom juste noonu la boo xam ne bu feeñ ñëw ne la man am di wane ne man sax noonu la alxuraan waxu la nga jàppee ko noonu boo xam ne la après léegi nag da ngeen di guerre à jamais waaye lu mu la lu mu la digal ci kooku moom mooy lépp loo xam ne dafa la ko def lu bon yow na nga ko fexe ba soppi ko ci li nga xam ne moom mooy lu baax kon loolu nag nga dina dem ba kooku day nekk sa sa ami bu gën a bu bu la gën a jege kon lan nga war a xalaat kon ci bu fekkee bokk la nag boo xam ne moo ñëw di noonu ak yow donc fayu bi waru ci peut-être da ngay jël ay décision xool nag ngay fexe ba nga xam ne ne Euh, wàññi say tànk wàññi tamit di wax say projet une deux nga wax na ndàngam nangam mais tamit teewul nga continuer faire comme si de rien n'était boo leen tasante bu nuyoo waxtaan euh, ci jàmm ak salaam mu ngeen waxtaan ci politique waxtaan ci euh, dëkk bi et cetera après sa vie nga gardeel ko pour pour pour yow nest wala pour ñoo xam ne yow wóolu nga leen donc loolu moom mooy lu ci war donc loolu jar bàyyi xel la ci. anam boobu ci nit ki diggante moom ak ay mbokkam surtout tamit ay ay ñaari waajuram beneen yoon incha allah di leen dugg ci beneen point euh, ñu ngi ñu ngi àndoon ak seen mbokk Issa sàmm ci rajo Risaala podcast bi nekk ci lu aju ci al adab te mooy teggi nii lépp loo xam ne da ciy jub yàlla suñu borom tabaaraka wa taala defal ñu ci defal ñu ci tawféex ak taysiir